dëgg des nañu ko gërëmee ki nga xamee ni moom moo di 2STV ak Bécaye Mbaye Bécaye moo yóbbu tey làmb fu ne ba nit ñi bëgg làmb mais bu njëkk làmb nit ñi def demoon nañu ba tegu violence bi ñu ciy wax aussi tam lii ko indi bu njëkk amateur dafa amoon mais supporter néewoon na léegi nag supporter kese nekk ci làmb ji parce que amateur yi dafa am lu leen daan indi wayu xaar mbay tuusu mbay géey tuusu tuusu maam góor gi tuusu papakan tuusu njugatin euh, yusu jéen ah, yooyu amatul tey kuy kii ci ci ci làmb tey kenn bàkkootul bulul Pikine sax am nañ ci kenn koo xam ne mooy sunu titre muy sana moom mi ngi bàkku di delloo si cosaan mais sinon li ci des yëpp dañ ko dafa dafa yàqu làmb dafa laajaat ay jàngat yu bare bare bare bare ay réforme bi ci topp aussi tam nit ñi kenn moomu leen lii lay war suuli suul yi nañuy yar seen kàddu ci bu ñu toogee ci télé que ça soit promoteur ak n'importe qui xam nga toog ci télé naan ay ay ay ay naafiq ngeen ay rambaaj ngeen Sénégal yi dina seet am na ci yoo xam nit ñi kenn moomu leen

a rafet te liñu gis dafa ñaaw te nit ñi Sénégal nee lu ku ñoro yor sa lettre ñu sa soleil dañ ko jàngagul il faut ku ñu respectante respecté aussi tam la presse presse bu aussi tam xam ñom liñu yor moy lam li yak nak lamb di dëggantaan moy les points com parce que point com yi koo ci gis rek du ñëpp ay journaliste journaliste yi ñi ko jàngawoon léegi daanaka lam njagam bay doon wax naan bu doon bâtiment la amatul bunt amatul fenêtre man ko lu tax mu ne fu way neex jaar suñu métier bi fu way neex jaar et donc li nga xamni moy sama mot de la fin euh, Iba ibakan mooy maa ngi dellu ce qui se passe à Pikine man Babacar Mbaye ba mu si neexuma maa ngi ci doon dox ci ñiy jéem a jaxase sunu rakk yi fa ne Eumeu Sène mooy mag ñoom Boy ñaa ak Ama Baldé dama bëgg maa ngi wax ak yéen na ngeen am seen fulla ak seen fayda ba bu leen kenn jaxase parce que Sénégal ñett yi la ñu bañ Iba kan nga waaja tukki mi ngi ci yoon bi ak léegi mag luñ ci xam duñ egg ba ngeen di son ñi di di ruuma ndat ñu bari fekkewuñu ëma seen dajal nga lu nekk sa wayju ëma se ëma ëma seen ëma seen dajal nga lu nekk sa wayju ñu bari fekkewuñu ñu xam li nga am mérite la boy ñaan sa baye daj na lu